Euh, li xew élection yi nañ ko na mu amee ba ba fi ñu yegg si ñu ne Bassirou Diomaye Faye fi mu toll nii nag d'une manière officielle mooy njiital réew bu Sénégal juróomeelu njiital réew bu Sénégal jàngat gi noo koy defee. waaw njàngat mi de xam naa ne manees na koo jëlee ci angle yu bari. Hmm. ndax moom côté boo koy bëgg a jël rek. boo xoolee da ngay gis ne mën nga koo jël ci beneen côté. dëgg waaye li ci jiitu loo xam ne ab jullit. Hmm. moom la koy jàngate mooy day delluwaat ci mbirum borom bi dëgg-dëgg. Hmm. day wane ne li yàlla waxoon ne nguur maa ko moom. nguur maa koy jox ku ma neex ko saf da ciy gis loolu xam nga mm-hmm. aaya jooju jibi ni ko yàlla ràbbe dafa yéeme mm-hmm. ndax boo xoolee bi mu waxee ne xulillahuma maalikal mulki mm-hmm. maanaam yàlla ci boppam dafa wax ne moom mooy buuru buur yi ah, moom ci boppam moom moom nguur ñi mu ciy seddal moo tax mooy seen buur waaye yëmut ci loolu waaye mu ne tuutil mulka xam nga tuutil mulka yàlla mënoon na cee yem rek ci ne maay joxe nguur bàyyi noonu waaye da caa boole ne manta saawu ma neex Eh, ku ko neex mën naa wuutee ki neex nit ñi mhm. bu ma tuddee ki neex nit ñi mooy ki nit ñi doon xaar waaw nit ñi nit ñi mën nañuy xaar nit wala nit di ko xaar ci boppam mhm. wala nit daj ci lu ne fekk yàlla namm ko ci moom eh, nga xam ne bu la koy jox effort yi ngay def lu mu tuuti tuuti mu ne la ko boq mu jox la ko mhm. waaye bu koy nangu ci yow watan aw pexe yi ngay def ngir téye ko lu mu rëy rëy rëy du tee nga ñàkk ko moo tax da gis ku ñu fal ñu ne moom mooy chef de l'état xanaa la doole yam ne moo yor doole armée bi moo yor doole nangam moo yor doole nangam moo yor doole nangam waaye ànd ak doole yooyu yëpp mu daje. bu nguur waree génn ci loxoom euh, mënu ci dara. mënu ci dara kam ko yéene woon mën naa bañ a dugg ci loxoom. fa mu bëgg mën na faa bañ a dugg waaye moo koy jox ku ko neex loolu moo feeñ ci euh, doon président wu Bassirou Diomaye Faye moo tax ma ne amul ko ciy bàkku. Mmh. maneef na cee bàkk nit nag waaye bu kenn bàkku bu kenn bàkku waaw man na maa ñëw ci jibi ne ko jibi kat ñu ngi lay ndokkeel ndax yow gis nañ ne combat bi jàpp nga ci dañ nga ci lu bari waaye bu nit yëkkatee loxoom ne mën a rek yàlla mere ko parce que nag moom la. wax naa ko kenn ci euh, leader yi bokk ci Pastef ne leen bu ngeen seetloo ni ngeen doon campagne war ngeen a xam ne yéen daanaka du ngeen ci dara. Mm-hmm. ndax du mobilisation moo doon génne nit ñi. du sensibilisation moo doon génne nit ñi ñi doon génn lele ñu génn te xamuñu leader bi dëkk ci seen mm-hmm. gox mm-hmm. maanaam bu jibi nekkoon géejawaay waa géejawaay mën nañoo génn fees dell midin bi te xamuñu kuy jibi jibi jibi yitteelu leen mais ñoom waaw dañuy génn ndax sonko wala ñu génn xam ne jibi moo ànd ak wala ñu génn sax ndax sax oto yiñ taf Ousmane Sonko taf ci Bassirou dong oto yi dong dañ doon génne nit ñi mm-hmm. oto buñ taf photo yi rek day génne nit ñi nga klaxonné ñëpp daw génn waxu maag nag kon bu fekkente ne nit ki dafa génn moom ci boppam loolu ngelaw la loo xam ne day upp dafa am ay at yoo xam ne ci àggee Euh, borom bi mooy jékki-jékki am ku muy tànn. Mm-hmm. Euh, loolu bu buñ ko nattee ci diine day am nu muy tudd. nu muy tudd euh, boo ko nattoon ci diine tey moom la ñuy wax tey mu jaddit wala nangam wala nangam. Mm-hmm. mu jaddit baat bi moo garaaw rek. Mm-hmm. boo ko waxoon tey léegi tey nit ne yaa ngi ëppal kat. kon diisul déedéet nit day ëppal nit day jàpp ne da ëppal ba da bëgg a jël ab ab politicien wax na ko ma ko baa diisul déedéet waaye waaye waaye taj jit mooy yeesal yeesal benn mbir xamu nu ngeen koy waxee yéen ci tubaab mooy def ay eh, ah, maanaam daal eh, def ay réforme maanaam maanaam daal yeesalaat nit révolution révolution loolu mooy lool mooy taj jit rek ah waaw dama ko doon wër gisoo ni ma sonne ah, eh, yi ma ma gën a dégg moom moo ma gënoon a jege léegi taj dit moomu nga xamante ne moom ngay def loolu borom bi da koy soxla jamono ju ne day am ñuy yeesal ñuy ñuy maanaam maanaam ñuy ñëw ngir war a yeesal hmm. ni askan wi doon dunde hmm. askan woow nag dañu am gis yéen ak taxawaay boo xamante ne moom la ñu am loolu hmm. moom moom moom ngay seetlu ci campagne bi moom ngay seetlu ci yëg-yëg yi moom ngay seetlu ci guléet yi may wax xam nga dama naan ren dañoo am ay guléet yu bari mhm. guléet bu ko olof waxee yéen moom ngeen di wax naan loo xam ne mi ngi door am c'est la mhm. première fois c'est la première fois ñu am président boo xam ne nekkul chef de parti Abdou Diouf jiite wu doon ab parti waaye Senghor da koo yekkal nguur gi dem mhm. waaye koo xam ne jiite woo ab parti secrétaire général nga ci biir parti bi waaye doo président wu parti bi ñu tànn la nga génn ci kaso defut lu une semaine nga gagné réew ma premier tour te nekk opposition loolu guléet mu am ci réew mi moo ne ko woon gën a fës sax ñeneen déedéet du moom moo tax moo tax du moom du nit ñi du woon mujj na dem na ba toll foo xam ne du woon du woon jomaay du keneen ku manoon di doon jàpp naa ne nii mbir yi nii lay demee parce que mm-hmm. dafa am benn mbir bu yàgg boo xam ne moo am depuis 2021 ba léegi man mm-hmm. ngaa wax ne parti Pastef ak coow léegi yëkkatiku gi mm-hmm. niveau bi mu nekkoon wàccut day gën di day gën di yéeg te te mu mel ne ñi leen bëgg a faagaagal bàyyiwuñu xel ci loolu mhm. day mel ne dañ leen di yokk te duñ yëg ni ñu ngi leen di yokk léegi loolu bokk na ci li nga xamante ne ni manes na ko cee jàngate mhm. moo tax dañ koy delloowaat rek eh, ci beneen jàngat boo xam maa ngi ci waxtaan ak génn kilifa mu ne ma daal da nga ciy waaw gis nga nit kenn du ko xeeb nit kenn du ko xeeb kenn du ko xeeb xeeb nit baaxut mhm. loolu dañ ko ci dañ ko ci eh, dañ ko ci wax mën ko ci tamit jàng waaw Basiiru Jomaay buñ ko doon teg di teg nit kuy jàngat ak a yëf man ngaa am yu bari yoo joxoñ waaye yàlla moom du xool loolu dogalit du xool loolu yàlla noppi na ca démb tey door xeeb gi kay ci campagne bi sax dégg nga yenn kàddu yoo xam te ne yu mënul rafetlu waaw en tant que doomu jullit nit daal man daal jàngi naa ci daal nit daal lu mu bëgg na xëy nekk ca gis nga nit boo amee volonté ji bi te gëm sa bopp gëm li nga doon te nekk ci yàlla dana la ko may sëñ Tuubaa bind na ci naxjul xadaayil xaaji ne man xara al baaba walajja walaj nee na ki taxaw ci buntu di fëgg nii bañ a bàyyi naan koŋ-koŋ bu yàggee nga ubbi maanaam ñu ubbil la benn dana am kuy ubbi nga far dugg wala nga tànqal leen ci fëgg yi ñu ubbil la kuy wut dara te bàyyi woo te am ca jom la ngay wut mën nga koo am waaw léegi loolu ngëm-ngëm la boo xamante ne ñun dañ ko cee war a jàng ñun ndaw ñi kon lii leçon la yu ñu la yoo xamante ne mën naa moo tax ma ne la boo laajee nit sax ne ko noo ko jàngate sax pour mu jàngat ko problème lay doon parce que angle boo ko bëgg a jëlee da ngay fekk mu fees dell dell dell dell ak ay bagages yoo xamante ne doo xam doo xam noo koy noo koy décortiquer xam nga koo xam ne nga ni si daaw lañ la jàpp yóbbu la kaso waaw nga àggalee sa sa weeru koor ci kaso bi la gars yi taxawoon ca buntu biroom di ko xaar léegi tey nëga ni fii ren euh, nga génn ci réew mi doon président de la république. waaw war a dem jiite ji war a dem àggale ji sa koor ci biir palais ba. loolu wax naa ne sax nit ñi bàkku sax di xam xay bu sax fi mu ne war nañoo rus ta noppi te ñu jàmm. Mm-hmm. ndax bu fekkonte ne gisaanee seet dong la. ñi génnoon di def ay révolution naan diw dana bokk ak diw du bokk. dégguma benn gisaane nangam fii lay mujjee ñoom mënuñ ko woon a wax ñooñu. dem seeti dem seeti dem seeti ñoom candidat yëpp wax leen ko ñu sakkanal seen xaalis bi a sonn ci campagne bi Eh, looloo gënoon noppale ni maanaam ñi defoon 30 millions nga dem ñu jox la deux bo bokk wala cinq yi nga wax leen ni leen noppalu leen bu leen campagne teel dem ci Ousmane Sonko ne ko jërut sax ngay ngay def grève de la fin wala ngay sonn ci yëf yi ndax buñ demee ba ci yëf ya da nga am candidat Bassirou Diomaye Faye nii la tudd nañ bàyyee xay bu yàlla mm-hmm. nañ bàyyee yàlla lim moom te ñun ñu def yëfi nit mm-hmm. léegi nit ñi nag li leen engagé muy ngelaw lu doon upp ngelaw la loo xam ne ngelawul changement la loo xamante ne amadu Ba euh, même moom sax euh, ak taxawaayam manees na ko cee respecté te jaajëfal ko. Mhm. ndax du ak yaafuusam moo tax gañewut waaye keneen ku ñu tegoon ku dul Amadou li dal Amadou koy dal. moom bi moom mi tegaate sax bu taxaw léegi nag léegi nag waaw même même da ngay jàpp ne président de la république ci boppam bu demoon. Euh, li xew nii mën naa xew. léegi nag olof yi dañ ñaan ku fóoti ba ñëw moo neex a yóbbante mhm. c'est-à-dire ki dem fóoti ba ñëw boo ko ne woon jibi bu jibi ne woon tuuti bi ngay fóoti waroon naa ko yóbbante la la eh, boo ko yëgoon ma fóotaaleel la gannaaw dem na ba ñëw loo ko waxati mu ne waaw mhm. fi mu ne ñu doon woon candidat it ku ne mën ngaa wax ne diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam waaye fekk xëy na buñ ma yóbbu woon sax moo gën ñu yóbbu ko moom mi mu gis nga ko débat Serigne Cheikh Ahmad si daal ci wàllu natt sa jom dafa wax ne ki nga xeexal gañee ko sax di nga ko respecté parce que am na jomi ngeen xeex mhm. ki nga xeexal nga kër këree kër kër kër kër kër kër ba gañe ko di nga ko respecté léeg-léeg nga dégg ci mbëri làmb yi mbër daan am mbër ba noppi mhm. waaye bu honnêté dana xam ne ki mu doon bëreel mbër la ndax bi nga ko yëkkatee diis na bi nga ko dóoree fayu na Euh, da ngaa dem ba daan ko te jël la mënul woon a ñàkk rek. Mhm. waaw <laughs> loolu de dëgg la. Mhm. mais tamit mu ne si nañ ci jàng tam ne euh, ab peuple bu dem ba fip mhm. jël ay yëfi boppam. ndax loole tamit mënuñu koo jàngat ci mbir mi. ah kay loolu sax lañ ci war a jàngatee liñ ci war a jàngatee mooy delloo njukkal askan wi. waaw euh, gis nañu taxawaayu askanu Sénégal ci seen. détermination bi ñu maanaam maturité bi ñu am. Mm. mat gi nga xam ne moom lañ am détermination bi ñu woote. ñu xam ne it loolu mooy dëgg. ñoom politiciens yi dañ koy wax waaye léeg-léeg mel ne dañ ko dul gëm wala dañ ko dul xam mhm. léeg ñu ne askan wi rek moo am doole waaye buñ jógee dañuy jàpp ne dañuy nax askan wi mhm. askanu Sénégal fi mu ne dafa mel ne tollatuñ ñoom fu leen politiciens yi di naxe euh, mais li ma seetlu ñoom ñooy nax politiciens yi ñooy lekk xaalisu politiciens yi oh. léeg sax ñu solal lay tiset man eh, ñëw di la tàccu waaye bu élection yi jàllee da nga posé question yi waa man dëkk sàngam ba ma demoon wane na ko parrainage yi ana ñu parrainé woon xanaa lañ bu dee dañoo parrainé woon xam nga ah, parrainage ay sew-sew da ci am parrainage moom daaw wax incha allah bu ñëwee xoolaat parrainage yi parce que parrainage moom waaw moom itam lu ñu war a waxtaane waat waaw ah, ah, léegi loolu nag li muy tegtale mooy aw askan aw askan mooy mooy àdduna mbooloo mooy doole mm-hmm. gis nga nii ñu àndee jibi ci wàllu politique ba def changement bi ñu def. Mhm. wërte yam foofu. Mhm. noonu la ñu war a àndee ngir soppi suñum réew. ci lépp kenn nit du soppi réew mi. Mhm. réew mi ñun ñëpp ñoo koy soppi. gis nga Bassirou Diomaye Faye mi ñu fal damay faral di wax ne Abdoulaye Wade bi ñu ko falee dañ daan wax naan nañ bàyyi góor gi mu liggéey. man bëggumaa dégg loolu. damaa bëgg a wax ne nañ ànd ak moom liggéey. ànd ak moom mu liggéey. ànd ak moom liggéey nag tegtaliwul ne waa ji am ab poste de. déedéet tegtaliwul waa ji day am ab poste am na yoo xamante ne buñ ko defee rek lépp yàqu maa ngi mm-hmm. man tax rafet naa njort ne duñ ko def mm-hmm. mooy mooy séddale mënta ñàkk mm-hmm. faaw ñu séddale waaye nag waruñoo séddoo faaw ñu séddale waaye waruñoo séddoo waruñoo séddoo lan mooy différence bi xam nga séddale gi li tax mënta ñàkk mooy ñi ñu laa ñi ñu wuutu ci bopp réew mi poste yi ñu toogoon ay nit a fa toogoon ñooñu dañuy jóg waaw te buñ jógee aw nit a fay toog kon faaw ñu séddale ña fay toog dëgg la mooy poste bi ki ko mérito ñu tànn ko teg ko fa. l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. ñu tànn ki ko mérito mu toog fa. Hmm. séddoo nag mooy ji bi na ci campagne bi. Hmm. jibi am na base politique. jibi ji bi tëjoon nañ ko ci kaso bi. wala ji bi daan dem ci plateau yi. wala ji joxe na wala jiw joxe na nangam. kooku dañ koo war a sédd gis nga loolu daa bokk ci li yàq suñu réew ba ak suñu joone yàlla tey. kon waruñu ko nanguwaat. changement bi ñuy def bi ciy jiitu mooy fexe ba institution yi ak poste yi bañ a doon loo xam ne waa ji bu ciy jot mérite politique mooy tax loolu yóbbu nañu ci suñum réew nga gis magistrat buy politique mhm. yóbbu nañu suñu réew nga dem gis euh, secrétaire général bu ne ci ministère di politique mhm. yóbbu nañu ci suñu réew nga dem gis ab daas boo xam ne day politique mhm. ndax lan dangay jàpp ne lii tax nga mën a toog fi nga toog wala nga jëm ci kanam mooy dangay am base politique dangay ngay am mbooloom politique looloo la tax a mën a bokk loolu dëgg la euh, waa ji day ñëw di jiite si waaye amul benn mérite bu weesu rek moom mooy gañe moom daal dëkkam sax élection day gañe moo koy raafal wala yàgg na ci parti bi wala sonn na ci loolu séddale la waaye nekkatul séddoo loolu sax dégg naa ci procès bi nga xamante ne moom lañ wax ne moom la euh, président Ousmane Sonko ak euh, président euh, Mouhamadul Basir Jaxeer noonu la jaxaar wala jaxeer joma jomaay jaxaar fay jaxaar jaxaar ah, ku yow nag turam bi nag ko déet jàq moo tax ma day dal sa kaw de na ko ñëpp jàng jaxaar <laughs> jéeg yëpp baa ngi ci fay <laughs> kon son excellence le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngoog yaa ma ko waxal waxaaleel nga ma yóbbaale naa ñëpp yooyu yooyu yooyu ñu war a indi loolu daa bokk ci li nga xam ne taxawaay yooyu moom lañ ci war a am mhm. askan wi itam ànd gunge leen ci mhm. Mhm. moo ne ci biir campagne bi am na benn euh, su ma juumul mooy bu mujj bi sax ci clôture campagne bi Ousmane Sonko yëkkati woon na kàddu yu mel noonu naan ku yaakaar ne bu ñu paree dañuy xaw ma euh, en d'autres termes quoi bëgguma yàq waxam mais noonu laa koy jàngatee daal ci gàttal mooy da ngeen ne yàq am na ñoo xam bu ñu yaakaaree ne dañuy pare di paacoo ñu ngi nax seen bopp. waaw mbir yi dañ koy teg loolu moom. te noonu loolu loolu loolu la war a demee. loolu moom ku xam ah li ñu wax. parce que yaakaar ji ñu xaar ci ñoom politicien dafa bëri ay tappa. non yaakaar yi ñu xaar ñoom ku ko xaar doo paacoo wax naa bërki démb ne ñi àndoon ci karawaan yi ak nekkoon ci politique bi di politique ak ñi doon live ak ñi doon def yu bari bari na ñoo xamante ne xam nga fi ne nu ñu war a def. nan la ñu war a euh, ki nekkoon ub tailleur na dellu at atelier dem ñawi waaw ki nekkoonu militaire na dem daaji ki nekkoonu jàngalekat dem ca kalaas ya ki nekkoonub sëriñ daara dem ca daaraam ji jàngale damay doxal réew sax ki nekkoonub oustaz dem jàngale ji wala bu dee day conférence mu conférence yi hmm. waxuma nag ne ñooñu buñ leen fal nañ lu baax li ma bëgg a wax waaye buñ jàpp ne damaa am damaa am paar bu may jëli am réew mën nañ du caag yi ne dangay falu ngir door a mën a suqali am réew hmm. am réew li koy suqali mooy kenn ku ne fànn ga nga nekk nga góorgóorlu ci ñu jàppale la ba nga mën koo def hmm. tey bu ñu jàppalee nit ki ba nga xamante ne nii bu doon kuy defari dàll la dàll mi muy defar fexe nañ ba état waa gouvernement di ko sol. Mhm. waaye réew mi di ko jënd. ñu jàpp ndelal leen jumtukaay yu yuñ ko mën a defee. Mhm. ña ngay réew mi ci fànn googu. bi ma déggee ñu ne bu subaa euh, ci samedi ji ak fan yi dañuy bale dëkk bi. waaw dama ne waaw damaa kontaan ci xaaj bu njëkk bi xam nga lu tax. lu tax mooy dëgg la état yi développé yëpp seenu askan baleetuñ seenub dëkk dañoo am ñuñ jël ñu koy bale ñu engagé leen di leen fay. Mhm, am nañ ko ñun. Mm-hmm. am nañ ko de am nañ fi ay oto yuy jël mbalit mi am na ñuy bale tali yi waaye boo xoolee teewul ba léegi dëkk bi dëkk bi dafa taq waaw taqaayu dëkk bi taqaayu dëkk bi dafa am mm-hmm. taqaayu gooy gis ak say bët ak taqaay goo xam ne doo ko gis mm-hmm. ni dëkk bi tilime suñ biir ñun ñu bari noonu la noonu la biir gi tilime naa parce que ñun ñoo tilimal dëkk bi waaw suñu suñu taqu suñu taqu biir gi xam nga salte ci biir ci biir bopp nit lay nekk maanaam ñàkk xay gi nekk ci ñun mooy moo feeñ ci mbedd yi moo tax mbedd yi tilim moo tax mbedd yi moo tax waa ji xaye dem gi moo tax mu yëy gerte toog ci biir oto di xolli di sànni xotti ci mbedd mi ba noppi maanaam taxi bi di dawal mooy tax waa ji mën a jënd banaana lekk ba noppi sànni fu ko neex te bu lekkee moo tax nit ki mën a jënd sa seen ndoxam bën